tabarkal la tabarkal la dama ni ko ma ngay dem ndakaaru onima dekk la bo xamni de ndaw xaritu mak la fay am iliman mawdo silla mi ngi tok xamna sama digganteeg allah ji ëmat lamin jën na mu toll woon waaw xam na na mu toll woon mayit xam naa digganteem ak sëriñ Babacar na mu toll woon waaw moo ni bindal ko nangam bindal ko nangam bindal ko nangam bindal ko nangam ma jël kayit bi bëgg a tàmbali mu ni jox ma ma jox ko mu bindal ko boppam ba mu sotti ni ma ndax mu barkeelu ci waaw loolu won ma nu Alaaji Ëmat Lamin Jeen toll ci moom moo taxoon mu ni ma yaa ngay dem Ndakaaru ma ni ko am mu ni ma boo fa dee waxtaani mbiru daara gisal sa baay Ëmat Lamin Jeen miin na ko boo fa dee waxtaane xam-xamu politique gisal sa baay Cerno Amaat miin na ko boo fa dee doxi soxla àndal ak al jàng ndax seede baax na waaw waaw ndax seede baax na ndax seede baax na mu mel ni kon nag baat ak pas-pas rek la nu xam waaw baat ak pas-pas rek la nu xam ku ko bàyyi yàqu baat ak pas-pas ku ko bàyyi yàqu waaw